عن خلق هذا الرسول المجتبى فأجابت بكلمة واحدة كان خلق القرآن dafa tontu tontu lu gàtt moom soxna Ayisa bëggu bëggut a nekk di détail yonentu daana def lii daana def lii daana def lii déedéet da leen ni rek dellu leen jàng alquran lu ngeen fa gis ci aw tagg yonentoo mel noona lu ngeen fa gis ci ab safaan melul noona kon alquran la doon doon alquran ju doon dox ci kaw suuf kaana quraanan quraanan bi maana al kalima li alquran jóg lépp li ko tax a jóg moom la yonentu doonoon sallallahu alayhi wa sallam gaa yu baax yi ñëw mel noona moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yàlla daf koo de joxoon jawaamiul kalim mooy baat bu gàtt mu man cee yar àddina baat bu gàtt mu man cee yar àddina lamma jaahu rajulun yatlubu minhu alwasiya fa qaala lahu awsini ya mustafa fa qaala laa taxdab fa qaala awsini fa qaala laa taxdab fa qaala awsini fa qaala laa taxdab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaje daa ñëw ni ko dama bëgg nga dénk ma ndénkaane boo xam ni dama koy jariñoo te dootuma soxla leneen mu ni ko bul mer waa ji xeeb lool baatu bul mer mu laajaat mu ni ko bul mer mu laajaat mu ni ko bul mer gàtt waaye àddina bi yépp lu fi yàqu mer a ko yàq ku xeex da ngaa mer ku rey da ngaa xeex ku bañ da mer kon ku fexe ba yonent bi loolu mu ni waa ji bul ko def ku fexe ba doo mer na la wóor ni deesu la atte ci àddina ku dul mer deesu ko atte moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan dénkaane ni bul mer moo tax gaa yu baax yee daaw ñu mer daawuñu mer boo defee luy mer dañ la cey gërëm sayiduna ibrahima ibnu adham radiallahu taala anhu ñëw na dugg ci mbooloo mbooloo ngeen xam ni mbooloo ma sa bindoo naka jekk euh, meloo wa rafetul xaw naa euh, sagare tax ñay garde dàq ko mu mel ni àgg na ci laal yaramam waaye lu mu tontu ki pes yaramam daf ko ni allahuma ixfir li qawmi afwan allahuma ixfir li aqi haada yàlla yàlla na nga baal sama mbokk mii ma pes xoolal ci li muy fayee lu ñaaw ku la def lu metti lii loo koy fayee allahuma ixfir li aqi haada ak nitu yàlla bu tol noonu nga xam ne lu mu ñaan yàlla nangu ko mu ni ko jéggalal ma sama mbokk mi pes mooma ba ñu ko laajee lu la dal def ni yàllaa ma doon pes dama wóor ni def naa yàlla lu ko naqari def naa lu bon tey ba tax yàlla di ma yar ba di ma pes waaye ayibalul ki ko door yar loxoom koo kon du mer kon dégg na wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko doon du mer jamono dox ba nga xam ne nii li yàq àddina bi yëpp mooy mer boo meree léegi nag jumtukaayu yàq bari lu demee ni lii ngeen di tuddee ay vidéo ay ojo mu xew lool ci àddina bi yàq gépp di ci sababoo jëw yaa ngi ci rambaaj yaa ngi ci saaga yaa ngi ci nifaax a ngi ci lépp a ngi ci walxiyaasu billah doomu aadama yi defee ni loolu la ba ku téye sas rajo rek nekk sam néeg tëj ko defe nga ni àddina kenn yëgul la lu la neex wax ku la neex xas ku la neex yàq deram mel ni yàlla def laa gisul te borom bi subhaanahu wa taala mi nga ànd ak noonu léeg-léeg nit yëkkati téléphone am di wax moroom ma artu ko ni ko li ngay wax ñu ngi nuy diglu amaana am na ñu nuy diglu amaana ñu ngi nuy diglu yaa ngi moytu ku lay diglu fekk na maa yalfisu min xawlin illa ladayhi raqibun atid kii nga war a moytu kii nga war a moytu kooku ngay moytu ni mi ngi lay diglu mënuloo dara mënta diglu million yi nit bu ko diglu it mënu koo digluwaat waa ki nga xam ne nii nag maa yalfisu min qawlin yàlla nee na benn baat du génn lu dul ni capté naa ko bu yàgg yàlla moom kii moom dalay encensé secret wu di lay diglu te yëgoo ko yàlla nag nee na man maa ngi lay diglu yëgal na la ko nga fàtte kooku di daw kii nga fàtte yàlla mi ne maa ngi lay diglu bàyyi woo ko xel ci li ngay def lu la neex wax lu la neex def bàyyi woo xel yàlla ni yàlla ngi lay diglu yàlla ngi lay diglu yàlla nee na baat boo wax enregistré naa ko te dootul effacé wu kooku mbokk yi ndax monsieur waree su koo bàyyi xel waree su koo bàyyi xel waaye àddina ñëw sëriñ Touba dafa gàttaloon yàqutik àddina nee na lépp a ngi bàngaasoo ci benn affaire mooy lan xubbu riyaasa wa xubbu dunya nee na dara alagul xeet wi ak wu jëkk wu mujj lu dul bëgg àddina bëgg àddina googu sëriñ Touba doon wax nag cey bu ñëwoon tey bi caméra xewee bi taggante xewee bi jayante xewee kenn ku ne fàtte nga yàlla mi la bindoon kenn ku ne yëkkati nga sa mbagg ca kaw nu defee ne nooy dara sëñ Tuubaa nee nag kañ nga war a yëkkati sa mbagg ñetti état yii la yàlla binde ban jamono nga ci yëkkati war a yëkkati mbagg inama kunta maniyan xasiroo jamono bi nga nekkee nutfat mani toqantu mani ndax boobu eh, am nga loo war a yëkkatee mbagg mu ni déedéet foofu daa salte ku mu laal nga raxas ko aw inama kunta xaamilan lil asira wala jamono bi nga yoree mbuusum salte mi ci nga war a yëkkatee sa loxo mu ni déedéet boobu it li nga yenu daa baaxul aw inama kunta jiifatan na bi nga nekkee mbedd mu xeeñ ba say bokk ak say soppe génne la ci saal bu rafet bi summi yére bu rafet bi mbase bi ñu sànni ni da koy taqal lu ne ñu génne ni bum ko jege nee bi bum ci fanaan tey nañ ko yóbbu ci wanag wi fuñ ko jëme nañ ko suuli bala nu koo suul nag nanu ko sang ba mu set ba mu xam ne yóbbaale fa dara luy jame nan ko jox mbubb mu bees teq ba mu xam ni mbubb mi saltewul nañu ko yeew ba mu dëgër ba mu xam ni fa mu jëm munu faa xeex kooku yàlla nee na ko dinaa la fi fekk alaysa alayna an nataraxaba hada ndax kii waruñu ko fàttali ko waay yi lu waral tëb ji lu waral yëngatu bi lu waral yëkkati mbagg gi ayyuhal ixwatul kiram lu waral bëgg peeñ gi subhanahu wa taala gaa yu baax ya meluñu woon noonu de yuzakkiruni dalik xalifatana algaib mawlana cheikh abdullahi al ahad radiallahu wa nafaana bihi ñu génn këram ci belal mbooloo mi fees dellu pénc mi ñiy tëb am ñu gàddu fëtëy am ñu gàddu basañ mu dem ba ca diggi beeñ ba rek mu sóonu mu sóonu ci diggu suuf si boroom jamono la demoon na keroog génn góor a ngi sëgg fi moom di déey ba ni ñokket garab mbubbam bi loxo mbubbam bi ëmb suuf mu ni ñokket mu sotteeku ci kawam mu ni bëreet jëkkante di ko faxas mu ko waay waay jaru ko bis dina ñëw ba ñu may dugal fi barab peel ba may jëkka dal yaa ko fay dóor allahu akbar mais mbokk yi kañ la ñu war a tiitaru kañ ndax doomu aadama yi li leen di alak yëguñu ko ñaari baat benn bi mer lañ ko tudde wax nañ ko léegi benn bi fen lañ ko tudde fen nag mooy alak nit tey di alak àddina di alak àddina bi yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noona bu ngeen fexe woon ba bàyyi fen rek ma mën a waat ni li yàlla tere lépp ba ngeen ko amul benn jëf bu bon ci àddina nit di ko def te fenul jëkk tere nañu riba fen koy jiitu tere wanu sàcc fen a koy jiitu tere woon nanu njaaloo fen a koy jiitu moo tax yonent bi tënk lépp ni bàyyi leen fen moom rek mooy jëf joo xam ni dalay wommet ba leen safara kon lu nu war a def mu ne taxoo leen ak dëgg sayiduna abdullahi ibnu masudin radiallahu taala anhu rawa xadisan qaala fihi almustafa inna rajula la yasduq wa yataharra sidqa حتى يكتب عند الله صديقا فإن الصدق يهدي إلى الجنة ورجل يكشف ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waaye ngi joo xam ne nii dafay jéem dëgg di jéem a wax dëgg fu mu toll ma ngay wax dëgg ko di ko jéem ak li muy metti metti ba yàlla bind cëb dossier adresse diw dey saddiq la diw dey saadiq la ku ko def na kiilu nga ku yàlla bind boobu adresse nommé na la kooku moo kiilu yonent bi sallallahu alayhi wa ni nu bu leen naafeq bu ngeen bëggee seen société baax bu kenn naafeq ñu ni ko luy naafeq mu ni arba'u kisaal arba'u xas la yoo xam ni man kunna fiihi kaana munaafiqan ñeenti jikkoo ngi yoo xam ne benn boo ci am naafiq nga mu ni ko ban la mu ni ko isa tumina xaan isa tumina xaan nee na buñ la wóoloo rek nga wor buñ la wóoloo nga wor bu la waa ji dénkee nga lekk ko bu la waa ji joxe marché nga fen ca ngir am lu bari nee na naafiq ñëw na muy benn isa tumina xaan wa isa sa kasab bu waxtaanee fen balaa marché bay jàll dina fen dana fen marché bi doon dëgg mukk bu bëggee bu am bénéfice luy jar fukk nga ne ñaar fukk laa koy defare fen dugg na yonent nee na naafeq ngoog benn ñaari jikko wa isa aada xalaf nee na bu digganteeg yow it wor la ca dig ba bu la digee wor la fu la ni fala du fa wa isa xaasama fajar boobu siiw nag te bari nee na bu xuloo nag doonu saay-saay saa bu xuloo wax lu amul lu mu jekku rek sànni la ko xuloo yi ni gadd di wax loo xamul dara dara dara diw def na nangam diw wax na nangam diw sàcc na nangam diw njaaloo na wal xiyaasu billah kenn du ko wax nit baat yu ñaaw yooyu kenn du ko wax nit wax gi ak jëf ji sorewuñu demal ci ñuy jàng fiq laaju leen ku njaaloo nuñ koy def bu sangewul dañ koy dóor juróom dañ koy jël téeméeri yar bu sangewoo bu fekkee ne jiiñ nga ko ko nag ñu dóor la juróom ñett fukk kon kay sorewu leen moo tax dañu ni bul ko jige rek nee na saa bu xuloo ñëwee nag waa ji du moytu dara ci xuloo bi nee na kooku mooy alaamat naafiq ndax gaa yi nag Euh, dajale wunu ñeenti yëpp aha kay man de ñeenti yëpp maa ngi seet juróomeel waaye ñeent yi moom wér na ma ni kenn gañewuma ci wala yaa subila yal yàlla wéral ñaan kay yàlla faj nu moo des waaye ñeent yooyu moom mu ngi taxaw tem barab yii nag day faj loolu barab yii day faj rëy nit ñaa ngi nii ñépp tolloo ñëpp bokk nañu mel ñëpp bokk fu ñu taxaw loolu mooy teg sawaasiye ka asnaanil must yan yàlla boole defal tawfiq te jéggal nu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha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 ashhadu anna muhammad المغفرة والعافية والدرجة رفعت وفصل مقام المحمود التي وعدت إنك لا تخلف الميعاد bokki jullit yi li ñuy mottalee sunuy kàddu moo di loolu nu yonent bi doon jàngal muy yar boobu ak yëg gi nuy war a yëg sunu borom bi subhanahu wa ta'ala te bu nu ko yëgee rek mbooleem li nga xam ne moom la ñuy tawat ci suñuy jëmm day set wicc gaa yi noonu la ñu meloon buñ dee nafaraat dundu ñu jëkk ña nañu meloon bu jëkk mawlana cheikhul xadim radiallahu taala anhu jitaayam bu masaa ñëw day mel ni mag ñépp dañoo faatu na nawaakisu xursun nee na dafa mel dañoo muuma ñoom ñëpp ñoom ñëpp seen laaf yi mel ni dafa tooy mu ni waaw lu waral sëgg gi ñu sëgg lu waral tekkeeral ji lu waral kenn ñimeetu la yëngutu moo na sëñ bakki bu so de nee na walay sa bi walay sa bi sultaanin moo na nee na de du buur de bu ñuy ragal mu tëj la du buur de bu ñuy ragal ñu yóbbu la ci wanag wi déedéet walakinama al izzu nee na tedd nga gi bëx bëxi ci dënub kii moo roofu ci seen dën yi kenn ñi mu wut wax waaw loolu moom baa duñu tuumaal suñu bopp kon ni rëg-rëg yi danoo gisatul gidd bu nu mën a taxaw taxawloo koo xam ne jëmmam bu toogee nit dootul yëngutu am booba boog dafa amul caméra yu ma bëgg mu jàpp ma ba ku ne bu ñëpp toogee ma jaar ci kanamu ñépp ngir ñu xam ne maa nekkoon ne démb aka tuuti aka tuuti te nga xaar bis ba nga xam ne yow ma yu ay na ayna ahibaa'i ay na asdiqaa yi bis ba yàllay taxaw ne ana sama xarit ya ana sama soppe ya nga ne ñokkeen ñu ne waajaa nga ne le boobu bisa jara seen seen foofaa jara feeñ mbokk yi foofee la feeñ amee njariñ moo na Mawlana Cheikh Abdoulaye al Ahad de firi woon na ko fi keroog ba muy wax ni bis dina ñëw bu yàlla dajalee bindee fi yépp ba di leen woo ku ne mu di la laaj yonent yi saxaaba yi gaa yu baax yi nee na keroog day am na ko bu jógee bu jógee ñu xam ne jàmbaar jóg na foofee la ñuy waree foofee la ñuy xoole tagg wi foofee la mënóor a nekk foofee la damu war a ame foofee la gaa yi xam ban grade lañu am kon nag dañuy ñëw fii di jàng loolu noo ngi nii ni kenn yëngatuwul kenn taxawul kenn waxul bokk fu nu jublu di diglu kenn lenn la ñuy diglu allahu akbar xam nga baatub allahu akbar lu muy tekki bi nga ko waxee da ngaa weddi pouvoir yépp pouvoir yi àddina bépp weddi nga ko allahu akbar yàlla képp a màgg bañ nga ko ba da ngaa yëkkat say loxo boole ca wane ni man sax yoruma dara luy niiru ni am naa doole allahu akbar yàlla moomu nag nga wax moom di wax moom di wax ak moom ba war a tàggook moom ni ko asalaamu aleykum yéen ñi nekkoon sama ginnaaw yal na jàmm nekk ci yéen yàlla nuyu na leen loolu la julli jëriñ moo tax ñu ni julli tanha anil faxsaa'i wal munkar day dox sa digganteeg lu bon ab jullikat du saay-saay mënu ko ab jullikat du wax lu bon mënu ko ab jullikat mënta def lu bon ndax jullee ko ko tere ab julli ab jullit du man loolu bu fekkee ne man nga ko rek debal nga vérifié waat sa julli defaraat ko rek bul ko bàyyi defaraat ko dana baax gaa dañoo wuute rek ca daraja ya waaye am na kok am na kok julli daf ko yar ba nga xam ni mënta yëkkati loxoom teg ci dara dafa ragal yàlla ba ragal na fi yàlla yëpp Mawlana Cheikh bu Mbacké radiyallahu taala anhu noo fekkee magasin bi dafa bari woon ay sangalañ yaakaar naa Cheikh Mouhamadou Mahfouz dina ma dëggal bu ñu fa duggee di def dara bu la sangalañ yi yéegee dara naan bur yëngu ki la yéeg daan néew doole ki la yéeg dafa néew doole bul ko laal hasa huwa al iman mbokk yi lii mooy gëm yàlla waaye lu waral rëg-rëg ji di am ci àddina bi léegi ku nekk ni mana yowa bés a ngi ñëw di taxaw ni duman yàlla rek la bu nu jógee fii nanuy visité ji armeel yi nanuy visité ji hôpitaux yi nanuy dem ci biir kaso yi di xool foofa ku xam ni yàlla rek la di nga fa fekk ku ni yàlla rek a fi nekk nga xam ne la la wax loo waajee ne yàlla rek a ci des mën na la koo wax loo bàyyil sa xel kooku waay bàyyil sa xel kooku kooku nga xam ne bi ngay ànd ak sa jot ku ne nga ko tëkkaleel jom jom bariwu fa de jóge ci kaw suufu si yàlla si tëmba baxul asamaanam ci tiim la te daanuwul ci sa kaw jantam bii tiim la mën a lakk àddina te ak siwul wóor na ne ni am nañu ko téye téyewoo ko sa baay téyewu ko sa sëriñ téyewu ko ba noppi nga nangoo wut moroomum yàlla jom bariwu fa waay yàlla moomu nga xam ne bi nga xëyee sa kafe gi ñu la defaral ba mu neex nga guux ko bi nga wanaasoo nga mujj a xam fu muy jaar am na ko mu yabal de mu téye ko di ko jaarale fi mu war a jaar ba placé ko fi mu ko bëgg a placé bu dellu si waat di xaar mu ñor mu génneel la ko mbokk mi kooku di nga ko tekkalee kenn jom nekku fa mbokk mi nañu xam ne yàlla yàlla waay yàlla mooy yàlla yàlla lu mu wax dina ko def Cheikh Abdoul Ahad ko firi nee na li mu wax dina ko def te kenn du ko faj moo ne wan kullu nafsin taiqatul mawt bakkan bu fi dund di nga dee nee na man Abdoulaye di boobaak léegi gisatuma kenn kuy bëgg a dee boroomu sañ-sañ ni du fi dee nee na gëm naa ni la ca toppit noonu la koy defe la ca topp noonu la koy defe nanu jaamu yàlla te taragat yàlla foofu la nu sëriñ bi woo foofu la sëriñ bi sëriñ bi dafa bëgg ko dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa eh, eh, rabiatu ibnu Saadin radiyallahu taala anhu daa ñëw fi moom ni ko di ko liggéeyal ndaxte ci ñi ko doon liggéeyal la bokk xam naa liggéeyal na ko yonent bi ba li ba yonent bi bég ni ko sànni dooma ñaan dara mu ni ko murafaqataka fil janna li ma bëgg daal mooy xam naa ni bokkunuy daraja bu ñu dee dem àjjana itam mën naa am fa ngay dem day kawe waaye man dama lay ñaan rek ànd ak yow mu ni ko ainni ala nafsika nang ma dimbali ci sa bopp may nañ la ko waaye nag ma dimbali ba du buñ la ko la ko xañaat noo koy defe mooy reyal sa bakkan bii sa bakkan bii nag bu ma fi jógee jublu li liggéeyam bépp mooy fexe nga ñàkk lii nga am reyanteel ak moom bokk yi nanu reyanteeg bakkan bakkan da lay jay rek yoway nangam yow murid saadix nga yow sunni yu nga yow nangam nga yow nangam la wallahi xamoo ci dara dara dara nga ci xamul da bëgg lu neex sa bakkan rek waaye xam nga li xew ñun ñëpp xam nañ li ñu fanaane cay li ma fanaane buñ ko génne woon fii tey aw yet ngeen may fekke fii ma taxaw aw yat waxuma la saaga mais yet ngeen di yor ni waaw waa ji dof bii ndekete li li muy wax fii yépp lii la fanaane yàlla baax waay ba mën a nëbbu loolu xamu leen ci tus waaw nag loolu ndax dee su ko jox njukkal ki la làqal loolu doo ko jox njukkal yow itam nag jox ko darajaam ji bu ko buñ ko xëccoog moom moo ne ku ci xëccoog yàlla darajaam ba pare bu demee këram cay surga bu wax lu ku wokk darajaam surga bu wax lu wokk darajaam mu xaw laa rey soxna su wax lu wokk darajaam mu xaw laa fose ba noppi wañu ko nag ni yàlla yow Euh, li nga moom muumoo ko waaye yàlla daa xam ne ci kaaf gi nga nekk rek për për ji ko moom xam na ni di nga ñëw loo bàkku bàkku yoonam néew ji xam na ni yaa ngi ci biir kaaf gi mënu rëcc te bis dina ñëw mënu la nuus bu la nuus nag nga xam ne yàlla rek la jàpp subhanahu wa taala dajaloo bi dañuy wan loolu incha allah boo enregistré woon nit ñi balaa déwén nun ñëpp am na koo xam ne nii ma ngi koy déggee yowmal xiyaam Ah, kon de mbokk yi warees naa waaj warees naa waaj quatre-vingts ans ci kanam cey boo mën a na xam tur ñi nekk fii enregistré ko aj seeni photo quatre-vingts ans ci kanam ku fi jóge nga kosati ni diw jóge na fi quatre-vingts ans boo sàggantul jumaa ji jeex kon yëf yi ñëw na ba noppi di yëf yi agsi na ba noppi loolu dafa gàtt ak a gaaw ak a kon lu luñ koy waajale nan ko waajal duma sunu bakkan yi bakkan yi liñ nuy déy du dëgg dañ nuy jey rek waaye du dëgg lii dëgg mooy def li yàlla doon def xoolal Mawlana Cheikhul Khadim moo nu dàqoon a jàng Qur'an moo nu dàqoon a julli moo nu dàqoon a woor moo nu dàqoon a asakaal moo nu dàqal lu ne moo na moo nu gën a yey ci yàlla de kon nag nañu delluwaat ci yooyu la jëf loolu la nu gaa baax yi foofu lañ nu woon lu ne ñoonu ci ñoonu ci mbat ci mbaax yow na nga ni téréex rek doo def dara ci baax di jayante rek bu la boo doonee wëyu nag moom ñu ni wàllu yu nga wàllu yu nga <laughs> wàllu yu nit yàlla yi kenn doonatu ci wàllu yu léegi wëyu yi rek ñooy wallu yu ki jàdd yoon wi li sëriñ bi wax mu lànk ni ko sëriñ bi maa lànk fi nga jaar jaaruma fi ñu borom sañ-sañ la de waa ja taqoo fa sëriñ bi waxoon ni nañ ma defal sama dëkk bii muy dëkk bi iqamatu salaa wa tilawatul quran wa taalim ndeysaan ñu ne ah kooku da xam naa ne daa gëmul sëñ bi rek ak gëm sëñ bi gëm sëñ bee tax muy def li sëñ bi bëgg sëriñ tuuba nee na ku bëgg mbir faaw nga def bëgg-bëggub kooka mënul nekk mukk ci àddina bëgg kenn te lim bëgg-bëggoo ko loolu du dëgg bërki démb rek maa ngi dégg benn chia bu koy wax yaakaar naa ni docteur Aydari la muy tontonteeg benn waay ci Arabie Saoudi ñuy jiñante bëgg saxaaba yeeg bañ saxaaba yi mu ni ko bëgg nga Seydina Omar mu ni ko waaw waaw bëgg nga ndax ki rey Seydina Omar mu nakk nakal mu ni ko ab saxaaba la de bëgg mbir bëgg safaan bu mënul am addi daani laa yejtami jàngkati euh, usul yaa ngi nii ngeen ko addiit daani laay tamit ani ñaar yu safaanoo mënta ànd ñaar du ànd mukk ci àddina sëriñ Tuubaa bu ngeen demee ci téerim di ngeen fa fekk benn bayit taazil ilaha wa anta tusiru fi lqiyaami fi lqiyaasi law kaana ubbuka saadiqan la ataatahu inna almuhiba liman yuhibu mutiiu mu ni yow bakkan lii ngay woote ni bëgg nga yàlla mbaa murit bi lii ngay woot ni bëgg nga sëriñ bi du dëgg boo ko bëggoon topp ko li mu def di nga ko li mu wax di nga ko def li mu tere di nga ko bàyyi ku bëgg nit eh, dem leen laaj politiciens yi boo demoon ci benn candidat ni ko yow rek laa bëgg bu dee watelu nga lànk bu muti ne doo dem waaye nag foo toll yaa ngi koy bàkk waaye nag doo ko wateel mukk doo wut ku koy wateel mukk boo fekkee ku koy watee nit mën nga koo waxtaan loo ba mu tardé ndax kooku daañu ko boole ci militant yu baax yi jàpp mu ne waaju du ko def de kon Serigne Touba itam militant bi ko bàyyil jumaam yii bàyyil ko alxuraanam jii bàyyil ko nitum ñu baax ñii wallahi doo militant bu baax ca boom kon nanu nekk militant yu baax militant yu baax mooy li sëriñ bi bëggoon ñu bëgg ko li mu bañoon nu bañ ko dañuy bañ li sëriñ bi bañoon lu sëriñ bi bañoon dañ koy bañ ba kere ñu te wóor na ma duñ ci am yeddeel laa nalqa bi dalika lawmata laa'i min wara bir kaaba ci yeddu mukk ci àddina amunu ci tiitaange yanoon ci yàlla defal tawfiq dëppalanoog la mu bëgg dëppalen sopp gaa yu baax yépp doonte mënuñoo mel ni ñoom it uhibbu saalihiina walastu minhum la aliya an anaala bihim safaa wa akra'u